mais man booba man comprendre uma ben ay sept lan six bon bi client bi wàccee nag si la si la benn si la copain bi profité daal di lancé affaire bi si biir oto bi bi mu ko lancé si sama tànk bi fii nii si pédale bi la ko lancé moom moo ma def nii sax bi mu ko lancé noonu nag si la affaire bi daf falaam bi mu falaamee bon client yi di profité di jaar si fenêtre di wàcc ñoom ñu daal di pincé porte bële Tak iphone kan la da jual jol iphone kan la da da no camoufle non sen beudi rek mo lay jox image da bu waxe yang koy deg ni pensé porte bi porte bi ubeku am ni la jël ci ci bir amna jël ay téléphone ak ay sac man bima wacce ma len sen bi ni bi ni yegal passerelle bi ni jaar ni def